course vélo course oto ak course fas am fépp foo dem ci biir àdduna waaye boom mbaam moom Mbàkke mooy borom ma Mabo di animateur rajo daal di koy dara jaaleel Dakaractu amoon fii ci digg digal bi mu mel ni xew mi jéggi woon na dayoo. tagar gii nu duppe woon président Macky Sall jël ndam li waaye mu jafe woon lool ci nu jox bi moom dafa nanguwul taxaw wéy di daw Gassama boo wax ne lii mu def daal lam ci jublu weesu bégal waa Mbàkke waaw Kusumbaam bi toujours ni ma koy waxee rek chaque année dafiy am muy euh, décembre bu jot dama koy defee fii nga xam ne ni moom moo di Mbàkke Bawol ndax parce que day initiative boo xam ne damay bëgg Mbàkke toujours mu dund ak benn li nga xam ne ni moom moo di benn euh, fair play boo xam ne nii gisoo Mbàkke boobu ba gis nga course bi ñëpp ngi yuuxu ñëpp kontaan nañ waaye tamit toujours li may wax rek euh, am solo gum am euh, dëkk nag bu fekkee ndaw da see di liggéey ndax dëkk ba yéen li nga xam ne nii yéen ay waa dëkk ba da ngeen di si li nga xam ne ni mooy bés bi am na ñoo xam ne nag moom jàpp nañ si waaye am na ñoo xam ne jàppuñu si te loolu baaxul te ñëpp si autorité yëpp ndax parce que kilifa lañ jox naa leen seen cër cër bi ma leen jox nañ ma ko delloo am na kilifa yoo xam ne ñëw nañ mais am na kilifa yoo xam ne gisuma leen ndaw damaa nekk ñëw jàppale ma mbaam yi amoon daraja lool ndaxte dañu leen duppe woon ay kilifay politique ci biir Sénégal course bi daal di am mu mel ni kon làng gi mujjoon na metti lool waaye président Macky Sall moo jël ndam la jiitu Ousmane Sonko. course bi neex rek la def waaw kase dañu ko defal chaque at ñaari at yëpp moo koy jël waaw tey nag bëggoon na kaa jël yóbbaale ko. saret yi ñuy tere fu ñu ñu taxaw ñu jàpp leen dañu leen jàpp chaque jour te defuñu dara. maa ngi remercier kase. di remercier Macky Sall mi ñu ko tuddee. police bu Mbàkke seen teewaay ngi sàmm kaaraange askan wi fës lool kasema bo donte ñi nga xam ne ñoo kilifay politique yi kenn teewul foofee moom mi ngi wax ne mbéwatam weesuwul delloo buum ca boy ba ba dëwoon ak jàmm.